Hey everyone, guys, sunu bëggee wax ci anglais faalewuma dara danaa I don't give a fuck I don't give a fuck wala ñu ne I don't give a shit I don't give a shit wala ñu ne I don't give a damn I don't give a damn.